waaw maa ngi sant yàlla bu baax sant yàlla euh, julli si yonent bi wax dëgg yàlla sant samay waajur euh, di dem avec le santiment du devoir accompli yàqulu ma fi te yàquma fi donc euh, te Touba ñëpp xam na ne dëkk la boo xamante ni bii bu stratégique la dëkk la boo xamante ni bii bu dynamique la amul lenn lu fi ndaw te yàlla suturaal na ma wax dëgg fa yàlla ñetti at yii ma fi def lépp lu ñu sumb yàlla defal na ma ci ndam donc man sant yàlla donc moo ma war di sant bu baax Serigne Mountakha Mbacké ak euh, di ko ñaanal yi tamit yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér di sant son porte parole Serigne Bassirou Abdou Khadre di sant bépp kilifa diine boo xamante ni bii nekkoon nga fii may jëflante ak yow donc dara ñaawu si donc sant yàlla rek ak euh, gërëm leen ñoom itam. man euh, ni ma mel rek noonu laay liggéeyee xam nga dañ ne ku si nekk nin la yare noonu ngay jëfee te ni nga jëfee noonu lay seed noonu lañ lay seedalee man forcé mo fi personnalité maanaam forcé mo si aussi perso maanaam maanaam jikko na ma mel samay waajur yaree ma ko noonu laa mas a nekk fépp fu ma nekk muy kay muy adjoint préfet Dakar muy sous-préfet Kayel sous-préfet Thiès Sud sous-préfet Parcelles Assainies ba sous-préfet Ndar donc li ma xam mooy tenue bi man mënumaa soppi waaw maanaam tenue bi duma ma ndax dafa amoon benn kilifa bu mas a wax ne képp koo xamante ni bii maanaam ku ndombay tànk ah tax nga soppeeku buñ ko dindee nga rus te man loolu lépp dama ko doon bàyyi xel waaw moo tax man naturellement rek laa daan def lenn loo xam ne dama ko forcé xëj na nag loolu ci yar yaru waajur yi la mu neex nit ñi nit ñi mën see gis seen bopp euh, ci biir yar bi aussi dëggu maanaam dëggu looy dugg nga dugg si ak dëgg looy wax nga wax ko te mu fekk moom nga gëm ne mooy dëgg waaw bañ a def deux poids deux mesures bañ a di euh, maanaam euh, avancer de manière sournoise maanaam lépp looy def mu leer rek tegu si dëgg yaakaar naa ne bu ko def rek yàlla delloo sutura waaw mu xam ne rek loolu loolu loolu lu mën a nekk la maanaam euh, xëj na si gis-gis bi nekk na lu rëy mais boo amee abnégation def ci la nga ca war a def yàlla mën na laa suturaal wax dëgg yàlla ni nga ko waxee noonu la ñeenti màggal def naa ko fi ñaari élection def naa ko fi et nit ñi nee nañu ñaari élection yi mujj amul élection yu ko gën ci Touba loolu nag maanaam bu ma ko mënee moom mën na ko donc na ci def pas-pas bi ci war def ci yéene bi ci war def ci engagement bi ci war euh, bu boobaa yàlla mën na ko suturaal man nag maa ngi ci sant yàlla ndax man wàllu élection moom musuma see am jafe-jafe te musumaa yor lu ndaw yi tamit maanaam mosuma yor lu ndaw bi ma demee Thiès 200 bureaux de vote laa yore bi ma demee Parcelles Assainies 400 bureaux de vote laa yore bi ma ñëwee fii 641 bureaux de vote laa yore te yëpp alhamdulilah saa yu mu si duggee yàlla may na ci ndam loolu nag sant yàlla waaye nag nit mën na ko. Pour